installé officiellement la fédération sénégalaise de golf bi nga xamante ne bay di ay jiite patronat wu Sénégal moom moo jiite fédération boobu loolu nag su amee tey ñu jóge fi ñu jóge ba tey ñu am fédération war a changer doxalin gën a renforcer li ñu daan def ba golf nit ñi gën koo xam ci réew mi waaye it ñi koy par ñi koy gën a bari ñu am équipe nationale boo xamante ne ci xale yi walla mag ñi dinañu mën a représenter bu baax réew mi dafay jaadu disipline bu mel noonu nga xamante ne état bi moo ko waroon a doxal waaye bàyyi ñi ko bëgg ñu tànn jiital ci kilifa gu yem ni bay di ay daf ñuy réconforter rek ci wax ji ñu daan wax ne Sénégal jéego yu am solo la def ci wàllum yor discipline sportive yi parce que ay kilifa yu mag a ci ne kilifa yu nekk ci liy doxal réew mi ba pare jël ci seen temps di ko maye parce que bénévolat la ñuy def ndax mbëggeel wala cofeel gi wala sopp gi ñu sopp yenn discipline yi ñu nangu cee toog ak seeni naataango di ko defal réew mi dafa laaj bu ñu defee joŋante ba pare ñu installé leen officiellement fàttali leen it li nga xamante ne moom la ñuy xaar ci ñoom te ñu xam ko waaye day baax ci kàddu gu jóge ci état du Sénégal ñu waxtaan ak ñoom ci loolu. looloo tax tey ndaje mi ñu def ko fii ci Radisson eh, di amaat kóolute di waxit ne suñu jàppale du mës a dakk ci seen ci ci bay di nga xam ne mooy président bi dinañ taxaw ci wetam xam nañ ne président la buy jël ay initiative président la bu mun a dem wutali boppami i koppar waaye du tere état bi taxaw ci wetam gën ko jàppale pour que golf bi nga xamante ne sport bu am solo la ci réew mi mën na def liggéey bi mu war a liggéey ba deux mille vingt six ñu gis ay ndaw ñoo xamante dinañu ñëw participer ci compétition boobu te wane fa xar buy sagal Sénégal donc dañ koy sant di ko gërëm di sant bureau bi yëpp ak comité exécutif bi comité directeur bi di sant acteurs yi club yi ak famille golf yëpp di leen wax ne état wu Sénégal ni ma ko waxee léegi taxaw na ci seen wet ci wàll formation bu ngeen koy def ñu gunge leen ci su ngeen def wàllu ut jumtukaay yi wala ngeen gis wàllu infrastructure initiative yu ngeen ci jël ànd ceeg comité olympique ki leen jox délégation du pouvoir boobu mënul ñàkk taxaw seen wet gunge leen donc ñu ngi lay feddali confiance su état du Sénégal di la ñaanal yàlla aussi li ngeen mëbët pour muy intérêt réew mi parce que développement box du développement bay di añ du développement kenn ku bokk ci membre comme bureau bi wala comité directeur bi développement Sénégal la kon tey da ngeen di liggéeyal réew mi kuy liggéeyal réew mi nag njiiti réew mi di président Macky Sall dina taxaw seen wet à travers le ministère des sports pour que lépp lu ngeen mëbët ngeen mën ko def pour développement box kon ni ñu ko waxee léegi ci tubaab bay di añ installé nañ la officiellement ci sa taxawaayu njiitu fédération sénégalaise bu golf nga ànd ci ceeg sa bureau di la souhaiter une bonne chance